bisu mbégte la waaye en même temps bi su fàttaliku la di fàttaliku sama xarit di Mamadou Dieng di sama nattango doon sama conseiller te ñëpp xam ne amul ci Thiès ku ko gënoon a social alors tey occasion bi ça nous permet vraiment fàttaliku ne nit ku baax la woon nit ku doon def lu baax la tey ñaanal nañ ko tey suba ñuy sàkku tamit ci jeunesse bi daje fii bu ñuy football ñu wut certes kenn ku ci nekk victoire waaye ñu xalaataale ko moom ci jikkoom ci ni mu meloon ci lu rafet li mu doon wone ba tey lii xew lépp nekk lu rafet ah bu ñu jógee ci loolu nag mbégte bi mooy jeunesse bi saa ñu dajee rek wane ni ñoom ñooy waa Thiès maanaam muy waa Thiali muy waa Arlem kenn ku ci nekk jongante ak sa morom ci anam yi mu gën a rafete mais que lépp am ci dal lépp am ci kalm lépp am ci jàmm waaw président bis bu mel nii lan lay représenté ci mouvement nawetaan ak ñi ko jiite. je crois que consécration la parce que football fête la donc bi ñu commencé coupe bi yàgg depuis le premier août teel a ñu bi mais je crois que la décor est campé donc gis nañu vraiment lii far ci am final yëpp am na ci le parrain a répondu à l' appel te lépp aussi nga xam ne war la woon na ko ASC def na ko te boo xoolee stade bi xam ne vraiment les gens sont contents donc man en tant que président mënul nekk xam ne un homme complet parce que lii lañ doon xaar bi ñu commencé match yi. waaw je crois innovation yi ñu indi daaw bi mooy bon parce que bi mooy troisième édition coupe mère Talla Sylla man loolu bi ñu ñëwee innovation bu am mooy bu ñu suba la final bi day ànd ak euh, ORECAV ñu dem seeti ASC yi mu jox leen ay équipement jox leen aussi xaalis dañ naan def maillot culotte ba lañ naan joxe ak jeu de blouson mais cette année dañ damay jox ASC bu nekk deux de maillot donc loolu pratiquement mooy innovation bu bees bi. aussi ak vraiment nit ñi nga xam ne invité nañ leen coupe bi ñu tuddee ko Mamadou Dieng Mamadou Dieng su ko bu ñu ko tuddee Thiès tous les Thiès waa xam nañ ko parce qu'il a représenté sur le plan administratif sur le plan politique aussi sur le plan social donc tey bi ñu xëyee ñu dem këram wàcce fa kaamil ànd ak njabootam ñoo ñëw pour ñu sargal ko devant tout le monde pour daal vraiment ñun aussi am nañu droit de reconnaissance par rapport ak moom merci sant yàlla bi may may may fekke may fekkee di tal ba pare yàlla may ma aussi ma nekk ak sama xel lu ma koy sant la di remercier aussi le président de l'ODCAV de Thiès parce que je crois que sans moom nit bu gë bu gërëmul soo gërëmul nit doo gërëm yàlla donc dama koy remercier bu baax di remercier monsieur le maire je crois que lii aussi bis bu rëy la ci man il prend tout chaque fois le protocole di remercier président zone yëpp le président de l'ODCAV le chaque fois mu am dañuy jël jox ma du sama coobare ma ci gis sama bopp lépp yàlla moo ko def damay delloo yàlla di remercier aussi la presse parce que man je si suis la presse mais ñoom dañu ma def seen bopp donc li ngeen def ni tey rëy na di ñaanal presse bi yëpp yàlla yéegal leen ci kaw loolu daal lu rëy la ci man ah, sama teewaay tey fii ci final bi li ko waral bari na moo di dañu wax final coupe du maire bu Thiès ah, leneen li ko jiitu man ma dëkk kër Serigne Ablaye fi nga xam ni fa la ASC Arlem nekk. yàlla def ma nekk président bi donc li waral sama teewaay fii tey ñëpp mën nañ ko comprendre moo di dama nekk président ASC bi teg ci nekk doomu Thiès ki nga xam ne mooy maire Thiès yàlla defaat encore mu dëkk kër Serigne Ablaye donc c'est normal ma teew fi tey. Ah, sinon kontaan nañu ñoo ngi remercier toute la population thiessoise Euh, d'une manière générale et en particulier le maire Talla Sylla de son reconnaissance envers le feu Mamadou Dieng. En tout cas, toute la population thiessoise est aujourd'hui contente, mais la famille de Mamadou Dieng est très satisfaite, en tout cas, de ce parrainage. sinon dañ ci kontaan bett nañu mais kontaan nañ ci parce que xalaatuñu woon. ni en toujours xelu waa Thiès ñi ngi toujours ci feu Mamadou Dieng donc da ñëw bokk ak ñun xamal ñu ni Mamadou Dieng suñu mbokk la mais aussi Mamadou Dieng fameem rek moomuñu ko toute la population thiessoise moo ko moom. ah xanaa ñëw répondre à une invitation d'honneur ci final bi nga xamante ne ñu ngi ko dijee monsieur le maire de la ville qui est le premier magistrat de cette ville et li ma ci gën a neex Mamadou Dieng lañ tuddee coupe bi et mu doon une personnalité ki a marqué cette ville doonoon nit ku baax lii day tax rek même boo fi jógee nit ñaa ngi lay fàttaliku loolu mooy suñu teewaay fii ñëw accompagner yi tamit suñu ay partenaires ODCAV lañ ñu ñëw répondre massivement ak suma staff bi ma àndal les agents commerciaux ak suñu locus yi loolu daal mooy suñu teewaay fii tey